jërëjëf mbokk yi ba tey niñ leen toppalee guddi gi ñu ngi toog ak kenn koo xamante ni kenn du ko présenté muy Jam Production doon xale boo xamante ni vraiment xale bu am jom la xale la boo xamante ni bi mu duggusee ci làmb ci ci ci doon promoteur parce que wax naa leen fi mu jógee koo xamante ni da yoroon carte membre mbër yoroon carte membre amateur doon dem ba yor licence mbër dañ lay jaajëfal bu baax a baax moom musul génn ci làmb mu nekk xale boo xamante ne xale bu am jom la la ma doon wax saa su ne xale bu am fulla la xale bu am lu mu bëgg la ma koy nuyuwaat bu baax di ko siyaar jàmm maa ngi lay siyaar. jili maa ngi lay fay di la siyaar bu baax a baax a baax di la nuyu di nuyu sa caméraman Bas borom wasaare di nuyu personnel wasaare bi yëpp di nuyu képp ku ñuy suivre ci wasaare lamb wasaare TV wasaare musique ñu ngi leen siyaar bu baax di nuyu sunu xarit. suñu doomu nday baabu from États-Unis ñu ngi koy jaar bu baax baax a baax di nuyu waa Sénégal di nuyu waa àdduna di nuyu njabootu Sénégal bi yëpp. di nuyu fi ñu fekk nii tey comme li nga wax rek jam si fan si club jam si làmb jam si promoteur suñ demee ba nekk promoteur dafa am lu ko waral muy fi ñu fekk nii tey at bi di jeex ñu ñëw fi dund fi sunu feet muy kër sunu papa père ba ñu koy ziar di ko ñaanal. di ko ñaanal jàmm xewal sutura di ko ñaanal njabootam gi yëpp ndax su nekkee ci làmb rek moom moo tax chaque jour ma koy wax su ñëpp mu meloon ni moom benn ndaw dootul somé benn ndaw dootul nekk ci ay xat-xat nekk na koo xam ne mu ngi jàppale ndaw yi ci côté bu nekk ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm sutura xewal di nuyu njabootam gi yëpp di nuyu sama directeur Mansour Ba maa ngi koy siyaar bu baax moom tamit mu ngi si gañ soor di def lu mel noonu foofu di fa liggéey liggéey bu am solo waaw ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla defal jàmm defal ko xewal di nuyu magam yeeg rakam yëpp nuyu ñoom benn kodde ak may ba borom naa si am sit ñu koy jaar bu baax mooy jaay yu baax jigéen ñu nga gis ñu sañse lu ñuy yéem lu ñu leen di yéemee yëpp ci 30 euh, bi moo leen génnee foofu waaw ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax. jam mhm. euh, at bu bees ku ne xam ne ni jam da ngaa mën a tooñ. da ngaa bëri nga ak man tooñ nga ma wax nga lu la fi filmer nga ma def ko statut te yëgu ma ko yooyu yëpp ban message ngay lancé ñi nga xamante ni génn nañ ci at bu bees bi nga profité ci waaw at bu bees bi ñu ngi ciy dugg ci 2021 ñu ngi ñaan yàlla dugg seeg bisimilah rahmaani rahim génn seeg alhamdulilah rabbil alamin at bi ñu génn moom wax dëgg yàlla 2020 bi dina nekk loo xam ne histoire du ko fàtte ndax atum mbas mi lañ koy tuddee yàlla na yóbbaale lim indi woon muy corona bi mu indiloon ñu yàlla na ko yóbbaale dem ak moom. si barke Seydina Mohamed mu denc ci àdduna bi yëpp comme ni 2021 génnee corona bi daal nga xam ne moo lëmbe àdduna ñu ngi ñaan yàlla jëlee ko fi waaw comme ni ngay wax nag jàmm da lay tooñ duma lay tooñ sax dama lay wax dëgg chaque jour waaw baalu ak maa ngi lay baalu ak di la baalu ak waaw waaye li ma lay wax rek mu ngi nii yaa ngi ñëw te ko masque bi ngay ñëw. respecté woo distance yi. yaa ma génnloo sama masque man fu ma jëm sama masque baa ngi man yaa ma ko génnloo bi ngay ñëw yaa ngi jugee fu sori takkoo masque te chaque jour yu mel ni si laa lay corriger nga jàpp ne dama lay tooñ. waaw nit da ngay nekk professionnel ci li ngay def bu état bi jógee ay kilifa ne nit ñi nañ def li jili yow pour te revoir nga. mais yow takkoogoo sa masque. yaa ma yaa naa ko génnee. naa digle sangu dafay sangu. porte porte de voix nga dangay ngay wax adduna bi di la. ba du ma actualité jàpp la boo doon nga sonal ma ba du ma sa doom bàjjen. sonalu ma la booy génn ci yu mel ni war nga yor sa masque. takk ko laal sel respecter distance yi. ndax corona bi wax dëgg yàlla suñu sañoon mu teel jugee ci réew mi. wala ci àdduna bi waaye sa classe gu dëgër bopp gi ñooy tax corona bi di di du fi gaaw a jógee jili Ah, mm. léegi léegi mu doon occasion boo xamante ne xëy na du ñàkk yàgg mbër yi am na ci mbëri yoo xamante ni bokkoo leen woon gis-gis ci 2020 bi jot ngeen a euh, laale ci contrat wala yu mel noonu wala mbëri yoo xamante ni jot ngeen waxtaan waxtaan bi ñagas ñooñu ban message nga leen wax. non ñun jumte nag mënul ñàkk waaye ñun mooy suma juumul duñ amul benn mbër boo xam ne am na ak yow ñagas ñagas mm-hmm. wala am na benn mbër boo xam ne am nañu ak yow problème ci ay contrat waaw waaw waaye nag dañuy profité ci occasion yi mel ni di baalu àq àdduna. di baalu àq waa Sénégal ndax nit man nga sax dëkk sa kër doo fa génn te di tooñ. yokk sa musique rek di tànqal ñeneen yaa ngi leen di tooñ. waxuma la ñoo xam ne chaque jour ñu ngi génn di wax ci micro. Mm-hmm. léeg-léeg ñu wax nit loo xam ne dina ko tranché wala dina ko touché dañuy profité ci occasion yi mel nii di wax ne ñun ay ndaw lañ rek amul kulul juum képp koo xam ne mos nañ la offensé wala ñu mos la wax lu la naqade wala ñu mos la tooñ ñu ngi lay baalu àq di la baal àq waaw di la ñaanal jàmm ñaanal la xewal ñaanal la sutura ndax wax dëgg yàlla njabootu làmb ñu ñëpp benn lañ man damay wax chaque jour ne waa làmb bu ñu loon tànn seen promoteur man na waaw ndax ci matière yëpp dama cee jaar nekk jeune xam nga nekk produit làmb tamit di wane ne jeune yëpp war nañu mën a nekk ci làmb wane seen bopp kon ñëpp samay kilifa lañ ñi samay papa lañ ñi samay tonton lañ jigéen ñi ci nekk ñi samay mag lañ ñii samay tante lañ képp ku nekk si njabootu làmb rek maa ngi lay ziar di la nuyu bu baax di profité waale di nuyu CNC bu bees bi di ni ñaanal jàmm xewal di nuyu tamit ñu fi jógee waaw ñu fi jógee tamit xam nga ku ci mel ni per Aline Sarr liggéey na ci làmb liggéey bu am solo ñu koy ñaanal jàmm xewal at bu bees bi muy dugg yàlla defal ko ci xewal. Mhm. jàmm euh, fi mu toll nii bokk nga ci événement yi gën a rëy ci ci ci Gambie yow xale bu ndaw bi yow yaa ko fa organisé woon mu doxoon ci diggante Baye Mandione ak Xoyantaan mu doon ci 2020 bi loolu tey boo ma doon indi ci fàttali avant combat bi jour combat bi après combat bi Jamaïcain nan nga ko dundee. waaw 2020 bi moom jëli suñ doon wax ci histoire làmb ñu ne nañuy génne ñu sauver làmb balaa corona bi soo ne première da nga naan Jamaïcain ndax yàlla def na avant Covid bi di ñëw événement yi gën a mag. Sénégal ak Gambie yëpp maa ko organisé. Gambie événement fa gën a mag sax ak Sénégal laa wax bàyyi ma ñu doon xoyantaan maa ko organisé. Franc Bébé Saloum fii arène nationale maa ko organisé te mooy ñaari événement yi nga xam ne tey moo gën a mag ci histoire lambu Gambie ak Sénégal 2020. waaw loolu bu ñu ko yàlla defalee tamit dañ koy sant bu baax a baax a baax. di ñaan mu xeeb yàlla xeeb dolli saison bii ñuy dugg ñu def lu raw lu ñu defoon daaw. loolu la ñu loolu mooy suñu mébét loolu la ñu bëgg. tànk ndaw nag bi ñu defee lu mel noonu contentement gi ñu ci am mooy bi ñu koy def dañ ci xalaatoon ne ñii lay demee ndax xam nañ ne Gambie dañuy dund làmb chaque jour yàgg naa wax nañu yóbbu Gambie ay événement kon su yàlla defee ñun ñu def ko jël benn lutteur fii jël benn champion Gambie boole leen mu nekk làmb joo xam ne drapeau Sénégal bi la xam nga réussir bu mu am nag bettuñu waaye liggéey ngeen ci liggéey bu am solo lu TV TFM yéen presse bi yëpp jàpp ci lamb ji demee noonu askan wi doon ko xaar àdduna doon ko xaar mu ñëw doxee noonu yàlla moo ko bëggee woon noonu wax dëgg yàlla ñu ngi koy sant ci loolu bu baax di ko ñaan mu dolli ñu xam nga ñu defaat lu raw lu ñu defoon Gàmbi ndax lamb jooju ñu meloon ci àdduna bi àdduna bi toog di ko xaar looloo tax sax waral bi mu demee noonu ñu taxawalaat ko pour indiwaat ko senegal mhm. lamb jooju taxawaatal nga ko pour. waaw pour Sénégal fii comme Gàmbi la lañ ko defee woon àggul li lëndëmoon Gàmbi yëpp dañ ko bëgg leeral fii. ndax lamb joo xam ne lamb ju waral yegg la lamb ju dox si diggante ñaar réew la bi ñu génn Baye Mandione moo demoon fekk xoyantaan Gàmbi bi pour pourquoi pas xoyantaan déplacé woo Gàmbi ñëw fekk ci Baye Mandione. lay jaajëfal bu baax a baax a baax Jamaïcain. waaw yow tamit maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la ziar di la jaajëfal sama xarit nga maa ngi lay ñaanal jàmm xewal baax a baax a baax di nuyu waat waa kër gi rek di nuyu sunu maman nga xam ne mooy maman Ami Dramé soxna borom kër gi ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax ñu ñëpp mooñ njaboot a jëli yal na yàlla guddal fanam wéral ko sàmm ko sàmm njabootam yàlla taxaw ko taxawu njabootam gi yëpp di nuyu fii ñëpp ñoom maam Fatou Miss Aïcha Gora Njool mi Souleymane Nabi ñooy fekk fii yëpp si jotaay bi ñoom Moustapha sama champion bi maa ngi koy ziar bu baax a baax ñoom laas bàyyiwuñ kenn di nuyu Mansour Ba bu baax a baax a baax a baax borom Ziguinchor maa ngi koy ziar bu wér di nuyu May Ba borom Nice and Sit by Pulo waaw amagoo soxna célibataire nga waaye dee fi jaar di jëndal sa xale bi si sañse yi muy jaay. waaw ndax yi muy jaay am na solo lool sa costume bi nag vraiment. Babacar borom Espagne boo ma ko jëndal costume cravate gilet chemise ngaara borom Turquie bas faw nga jëlaale dàll yi parce que jamaïcain booy la Babacar borom Espagne ngaara faal borom Turquie moo ma solo ci dàll <laughs> dalaa yab dalaa yab <laughs> non dalaa yab man fi ma génn nii sama xarit sama doomu ndey ni ma la lekkee nii si sañse laay bu dee fa ko waral maa ngi koy ziar bu baax di ko nuyu lépp lu ma sol moo ma solal ci kaw ba suuf moo tax fu ma jàkkaarloog yow rek defaral lan la ko lépp nag laay bu def la ñu ngi koy ziar bu baax di ko nuyu non xoolal ci kaw ba suuf bas na jël si suuf si suuf laa la njëkk a lekk ñu ñëw ci jiin ma lekk la ci <laughs> ñu dem ci kaw ma defaral la waraax la. Eh, daal lii di <laughs> astafurlah. sama la nag. Djily maa ngi lay bi bu wér a xam nga ni ma lay néewalee doole temps yi si sanse bi dafa doy waar naa la yóbbu ci laay bu def mu lay solal. waaw ndax yii kabo yi ñooy sol yi nii sanse kabo yi nga sanse tey daal daal kabo la jiinu kaboy la cravate bi xam nga. sile bi kabo waaw montor bi sax mu ngi noonu Baye Bass nag suñu sëriñ maa ngi koy jaar baax jili di leen wax ne ñu ngi leen xaar ci gàmb ji dinañ sama xarit Abdou Dramé borom États-Unis maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax te digg yàlla tey rek la ma woo def social bu baax ci feebaru ji bi ama bi ñu koy jaajëfal ci loolu di ko nuyu di ko ñaanal jàmm bu baax di nuyu Aliou li Ousmane Cissé from Atlanta maa ngi koy ziar di nuyu waa BMG Gambie Ndiol Dieng Aji Jaabi ñoom Matar di nuyu ñoom gil sama staff bi nekk foofu yëpp maa ngi leen di ziar bu baax di nuyu sama xarit Lor maa ngi koy ziar di nuyu soxnaam Fat seen Samb leer na chef de dépôt Molde maa ngi koy ziar baax di nuyu tamit maam Diarra Oldin Gueye maa ngi leen di ziar bu wér a wér di ñaanal jàmm xewal bu baax a baax a baax a baax nag. jërëjëf jamaïcain laa ci àndaloon mbokk yi euh, di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax di wax ni at bi ñu génn muy atum 2020 bari na ci ñoo xamante ni amoon na yéene réaliser ay mbir. mais réaliser nga ko ba mu sotti moo xam nga nga bëggoon ubbi entreprise suñu borom dooleel la kàttanal la ba nga ubbi ko nga bëggoon am kër suñu borom kàttanal la dooleel la ba nga am ko nga bëggoon am oto suñu borom kàttanal la dooleel la ba nga am ko te loolu nga am tey mun naa ni consommé woo ko euh, dee ñëw jël la ñuy ñaan rek képp koo xamante ni da cee génn àdduna yàlla na la suñu borom yërëm te xaare la àjjana ci àjjana yi si di baaluwaat àq ñëpp di ñaanal ñi nekk ci prison yi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 jëli fu ngay dugg euh, euh,